neex parce que je prends l'exemple dama si doon continuer mhm. on a on une manifestation au niveau de de de Kër Massar ñëpp gisoon nañ ko n'est-ce pas c'était autorisé mhm. ñu ñëw manifester macha allah patriote def def fa liggéey bu rafet mhm. manifester pare lu ñuy def ramasser jour boobu damay gis patriote yi di ramasser saleté yi même yi nga xamante ni mbuus yi nga xamante ni dañ ko doon sànni sax defaraat place bi ba mu baax dem suñu yoon kooku noonu nga yaakaar ni encadrer manifestation boobu gën yomb fuuf nga koy interdire ba ay dégâts war si mën am parce que nous on est dans notre droit c'est notre c'est la constitution qui nous donne le droit de manifester taxul ñu def lu ñu neex defuñu benn yoon lu ñu neex on est toujours dans l'exercice de nos droits suñu droit mooy lan manifester lan la ñu yoon may mooy ñu ñu ñu ñu euh, comment dirais-je ñu euh, aviser voilà c'est le mot ñu aviser manifestation que ni dañu nekk dañuy def manifestation donc après bu loolu weesoo nangu yoon na nguur disons nguur gi def liggéeyam mooy encadrer manifestation mu jeex si jàmm ku nekk ñibbi këram. mais bu fekkee bu fekkee yéen da ngeen da ngeen avisé. Mhm. au niveau du du mhm. mu gis ne manifestation bi kër bugg ko euh, autorisé. Mhm. mun na am euh, trouble à l'ordre public. loolu aussi da ngeen da ngeen koy nangu mais li ñu dégg seen leader wax mooy. avec ou sans autorisation dañuy def manifestation euh, est-ce que loolu aussi mooy. mooy mooy yee fitna bi aussi. Pape trouble à l'ordre public moom yaakaar naa ni ñu koy wax. c'est le pouvoir en place mooy def trouble à l'ordre public tout le temps la dernière fois je me rappelle damay damay war dem ñibbi sama kër mais pour ma pour may jël autoroute bi sax c'est tout un problème ndax lan ay série de manifestations yoo xamante ne ñu ngi koy def disons c'était c'était je pense euh, le 8 mars ñu def manifestation boo xamante ni bon disons c'est carrément trouble à l'ordre public n'est-ce pas mhm. te pourtant ñoom ñu ngi leen kay ñu ngi leen koy permettre mënoon nañ nu ñu def ba encadrer ñoom seen manifestation malgré que troublé nañ ordre public bi ñun ñu encadrer suñu manifestation bàyyi parce que amul benn risque réel de trouble à l'ordre public si koo xamante ni dafay manifester jóge këram manifester pacifique la wax marche pacifique méga meeting si benn place lañ koy defee loolu lañ prévoir akapes pour suba incha allah le sur euh, le lendemain mooy mooy disons euh, le 15 série de manifestations dans tous les 46 départements du Sénégal manifestation pacifique dañ kaa wax marche pacifique marche pacifique moom yaakaar naa ni trouble à l'ordre public amu si koo xamante ne day dox nànk wax lu mu lu ko metti pare dem ñibbi amul trouble à l'ordre public ñoom nag si boppam bu ñu bëggee troubler l'ordre public mooy ñu bañ a autoriser manifestation yi bu ñu ko autoriser wul ñoom ñoo troubler l'ordre public pas nous comment comment bu boobaa ne def xam nga comme suñu tracé nañ suñu suñu suñu suñu suñu suñu disons li ñu war a def mooy lan avec au sans autorisation on va exercer notre droit mm-hmm. c'est-à-dire notre droit à fair la marche pacifique mm-hmm. ñu tooñ du ñu saaga duñu dóor kenn du ñu wax kenn lu ñaaw du nañ dox nànk ba fi nga xamante ni moom la ñu moom lañ tracé itinéraire euh, comment dirais-je euh, def suñu marche léegi nag ñoom ñoo yor nguur ñoo yor doole léegi nag ils seront face à leur responsabilité xam nga koo xamante ni marché pacifique la def yorul gànnaay yorul dara nga ñëw interdire ko ba kay xoxatal kooku moom après yow tu feras face à ta responsabilité c'est aussi simple que ça